info actualité sport politique buzz information en temps réel sur Info 2S TV abonnez-vous. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi sama vidéo bi état bu Sénégal yéen yéen a ko moom bu fekkente ne ñemewu leen Ousmane Sonko wala da ngeen koo ragalee xel ngeen dem ngeen dindi barrières yi ñu tuubal Ousmane Sonko ñun ñëpp boog ñu ànd ak moom te jox ko réew mi parce que bu Modou Ndiaye defee dem prison Ablaye Ndiaye def prison Adama def prison Ousmane Sonko def depuis 15 jours ngeen di xaw ma lu ngeen di xaar. mën ko door ci kaso bi luy problème bi bu ngeen ko ragalee xel ngeen bàyyiko ngeen dindi ay barrière may ko mu tabaski si jàmm parce que yenn yi du neen wala ngeen dajj prison salaam salaam sama mbokk patriote j'espère que yéen ñëpp a ngi si jàmm wala ki nga xamante ni mu ni moo di président Ousmane Sonko changement boobu nag du leen ko fukki dërëm moom moo ko defaral boppam bi yéen na ñu nekk pour jot gouvernement bi yéen na ñu nekk pour neexal gouvernement gouvernement bi pour ñu pour ñu wax ak moom mais gouvernement bi mosuñu koo parce que dafa dugg ñëw fi xamante ne moo di Sénégal euh, parce que ñu mënul dugg Sénégal parce que instant yi yaayam dafa nekk ci diggante dund ak dee yaay ji lekkul naanul moom yaa bu tëdd sax amu ko yaay ji yore lu mu lekk boo ko mënee ketal cent franc deux cent xeebul dara yaay ji mat laa bu mu tëdd sax amu ko seen boole ngeen di lekk bu desee sax mu ngeen ko def ci mbuus dugal ko ci horaire bi yóbbu ko yaayam incha allah loolu moom soxla na ko torop te lu baax la yàlla dina leen ci bindal ay tuyaaba yu bëri bëri bëri bëri instant bii nag kenn xam ko pour Moussa Wathie nga ne xam ne moo di président Ousmane Sonko dafa bëgg gouvernement bi boole kook ay maire bi bu ñëwee fii ci Sénégal pour ñu protéger ko mu dem gisante ak yaay bi une dernière fois balaa moo dee parce que ñeneen ñuy dugg Sénégal tàppet la matu ni Europe kese la mën a nekk di saaga nit parce que Europe ay kayitu dof la fa yor ak ay kayitu góor jigéen Europe góor jigéen dafa am droit bërëb góor jigéen moo ëpp droit sax liir yi di doog a judd ñoom dañoo fonk góor jigéen moo tax boo fa demee bëgg protéger la rek dañu naan góor jigéen la te moom sax en vrai de vérité góor jigéen la parce que pour nga Europe pour nga wane ne góor jigéen la foog nga say góor vidéo ko yónnee ko euh, gouvernement bi pour mu mën laa def rek kayit jox la ay kayitu góor jigéen moom nag say naag góor ba mu def vidéo ba jox ko gouvernement Euh, fi mu nekk ba ñu mun koo jox kayit moo tax foofu kenn mënu ko laal nekkul ne sénégalais yi nekk foofu dañ koo ragal wala sénégalais yi nekk foofu amuñu fit dafa fekk ne foofu mën nga jàkkaarloog moom sax mais doo ko sañoo laal doo ko sañoo dóor parce que foofu sañoo dóor nit même bu dul góor jigéen sax sañoo dóor nit foofu bu dëkku dóoraate moo tax instant bi dafa bëgg ñëw Sénégal ñu sant yaay ji une dernière fois balaa moo dee gars yi yaay ji cent franc dara parce que instant bi sonn na yaay ji lekkul yorul lu mu lekk yorul lu mu naan seen lekk bu desee ba mën a noonu ngeen dugal ko ci horaire ngeen yóbbul ko ko ngir yàlla euh, jot jéem na jot gouvernement ba sonn te gouvernement lu muy bon ko fay xaalis loolu moom dama leen koy wax tey daf fay xaalis parce que bu ñu fekk duukat soskat góor jigéen ba pare dof di ko fay ko saagal ma ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko parce que suba day ñëw door leen ne leen yéen ma waxoon ma saaga kii wala kii parce que moom wóorul loolu laa leen bëggoon jox ci information sama gars yi suba ma joxaat leen yeneen incha allah merci. info actualité sport politique buzz information en temps réel sur Info 2S TV abonnez-vous.